maajaal ci mbedd mi bu guddee ñu dem naa ne ko sàngara maa ñu dem jëlee ko yàmba mm-hmm, mm-hmm. ñooñu ay bayfal lañ déedéet déedéet ñooñu kenn yow mii sa bopp yow bëgg nga ñu nekk bayfal déedéet déedéet xalaatu dama leen bay bàyyi ñuy nekk ci dëkk bi di yàq turu turu euh, daru sëy la di yàq di yàq daru yoonu murit déedéet déedéet bu ma toogee nit ñi nag la may wax ñoom ñu enregistré ko dugal ko man nëbbu ko parce que mm. bu ma doon enregistré bu ma doon toog di wax ak nit ñi nëbbu mm. damay ni carrément eh, kenn filmé Mm-hmm. man li may def dama koy def mu leer nañ. xam naa si bu baax xam naa. Cheikh Ibrahima yi ñu jàpp di ko wël wële dama bëgg ñu xam ne Cheikh Ibrahima du moroom ñu ko yàlla bind. déedéet déedéet bi muy ñëw ci Serigne Touba la ko sama borom defal moo tax muy topp leeru Serigne Touba ba fekk ko fa nekk kooku du moroom. Mm-hmm. la nekk ci moom na du lu ñuy doon du lu ñuy kii. la mm-hmm. sama borom def ca moom ak njabootam danañ ko doon ku ca ku ca ku ca ku ca mat a àgg suñu borom dina ko teg say ñu bëgg nekk fi di sonal nit ñi pour lan ñun tamit dañoo nekk fi ñun tamit dañoo bokk sëy la dañuy nekk dañuy nangu ku saay saay bu jóg rek ak say ndomba sa sol say sagar ne bàyyi fa la nekk ci lu la neex mhm, mhm. nekk ci dëkk bi di mandé ka saaga nit ñi rek mhm, foofu laa foofu laa waxee de mbàkke baal ak dafa am ñu incompréhensif bu nekk di wax lu leen neex kooku man akama akama akama akama dégg fi nga parce que man li leen wax nee leen doomu aadama man bu ba te man wax ci ko day mel man ndax ferekante naa la ay yoon yoon yoon nekk naa ak yow ak yoon yoon yoon yoon gisuma lu romb su ma gisoon ci yow lenn xam si ne da ngay sigracé pas dama la ñoo ñoo la ñoo la siyaar si ah bon ah? loolu bu sax yéen commentaire hmm. bàyyi leen maam ñooñu bàyyi leen ba di wax hmm. ma leen fii rek ñu ñëw ñu jox leen sama numéro téléphone bu la neexee ñu woo ma ma wax ak ñoom lu leen <laughs> moom moom kay bu dee nekk ci tapale kay moom kay moom kay moom kay Cheikh Ibrahima maam Cheikh maam Cheikh mi ngi bëgg a jël tuuma ju bëri teg ci kawam loolu kenn da koy nangu. léegi loolu déedéet déedéet déedéet. sëñ baa ngi nii wootee Touba Baye Fall yëpp nga waaw ñu nekk Dakar di def ay maajaara takk ay palaas lu nekk. ñu nekk Dakar di taxawaalu nekk Saint-Louis di taxawaalu nekk Kaolack di taxawaalu. di nekk ci mhm, mhm. a ba bi sëñ bi joxee ndigal ba euh, xalifa général de Baye Fall woote. Mhm. ña ko gëm ñëpp te yaakaar sëriñ bi ña nga ña nga ña nga ña nga ko ña nga ko wuy ci nekk fa. trop trop sax. alors donc voilà mi ngi noonu. ci dëkk bi di taxawal da ngay yaakaar ne dañu leen di bàyyi noonu rek ak <laughs> li ma wax leer na nee naa am na droit wax wax waa këram ñu ngi doon ay Baye Fall am na droit.